asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar mbokk mbokku julliti mbokku taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar man Thierno Moule Sow di leen ñaanal jàmm macha allah di leen ne kat alhamdulilah rabbil alamin euh, samedi le huit bii di ñëw samedi ci kattanu yàlla incha allah dinañ dem fële ca Kaolack ci Esat Lamine Gueye. invité nañ ñëpp nañu génn waa Kaolack yëpp nañu ñëw macha allah ñu nañu mànkoo ñëw ci kattanu yàlla dañ fay def consultation gratuite macha allah ñu def consultation gratuite faj leen te yàlla tax def ko addiyee suñu borom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass kon ñoo ngi invité mbooloom waa Kaolack waa yëpp nañu génn fekkuñu ñu ci stade Lamine Gueye ci kattanu yàlla na leen fa 3 heures fekk. 3 heures midi ngeen na ngeen ñëw na leen 3 heures fekk na ñëpp ñëw ci kattanu yàlla amul entrée amul dara dañuy ñëw pour faj ñii ñi def ko addiyee suñu borom sallallahu alayhi wa sallam addiyee Mawlana Cheikh Ibrahim bu ko defee ñu faj leen dimbali leen képp am feebar moo xam rab moo la jàpp moo xam jinne moo xam seytaane ak liggéey lépp lu la mun a dal ci kattanu yàlla boo fa ñëwee dinañ la faj def la soignement gratuit consultation gratuite soignement gratuit na waa Kaolack yëpp génn maanaam ñu teeru ma ñu xam na ne Thierno Moule Sow mu ngi ñëw ci dëkkam ci dëkk Mawlana Cheikh Ibrahim Niass kon ñu maa ngi leen di jox ndox daje ne ñëpp ñëw foofu incha allah ci stade Lamine Gueye Lamine Gueye bu Kaolack Thierno Moule Sow woo na leen ngeen ñëw foofu ci kattanu yàlla ma faj leen saafara seen jàngoro ci barki yàlla ci barki yonente bi ci barki Mawlana Cheikh Ibrahim kon nee naa asalaamaaleykum wa rahmatullahi ne ma ñëpp xaar maa ngi ñëw Kaolack ci kattanu yàlla